li fi xew du jàmm gars yi ñëppay jooy damaa ñëw ci dëkk boo xamante ni xolal nit ñi dañoo am problème ba seen bët yi xonq coy dereetal xam nga loolu du jàmm ndax lan gouvernement bu tekkiwul dara mënuñu dara xamuñu dara ba taxawal nag gouvernement bu bees boo xamante ni politique deux mille dix mais du sotti de du da ngeen a mën a tooñ rek da ngeen a mën a tooñ rek ah fekk Assane Diouf Assane Diouf nag laa wax marchand ambulant sàccul fenul di naqarlu li xew ci am réewam ngeen gàddoo ko ci yeneen réew man damaa defe woon tubaab yi léegi ñooy dipot de tubaab yi rek ñooy dipot étranger mais léegi maanaam les français noirs maanaam nit yu ñuul yoo xoolal la Serigne Touba doon wax nasaraan su ñuul si nasaraan su ñuul si nga xamante ni ñoo nekk suñu biir pale bi nasaraan su ñuul si nekk ci assemblée beek biir ndakaaroog foo tourné di dajeeg ñoom nasaraan si laa wax nag xam nañu ñi may waxal xam nañu tooñkat yi nga xamante ni xoolal ñun xam nañ ne mu demee. fii ay sëtu Lat Joor fi nekk ak ay setu Buur Siin Kumba Juuf ak ay sëtu Alburi Njaay ñu mel ne maam na Njaay <laughs> du ñu wax nag du ñu tudd tur parce que xolal am nañu fël-fël am nañu xorom te lépp lañu mën a def nag lépp lañ ci partagé leen vidéo yi view tey ñu wan leen ne xoolal gouvernement bu bees ak gouvernement bu màgget ak xoolal langkat super yeeg sàmba mbay mbayaan yeeg yalwaankat yeeg xamal li ma la wax les les maanaam géwalu marem fay yeeg tout le monde yéen laay waxal xam ngeen yéen ñi may waxal xam ngeen seen bopp ñi nga xamante ni nag xoolal seen xarit yi ñoo leen gënal seen jëkkër yi xam nañ seen bopp partagé leen video yi sa xarit ak sa jëkkër ku la gënal mu ne sama xarit sa xarit ak sa jëkkër ku la gënal mu ne sama xarit ba pare naan nag daf may jéem a yeb di am fu mu may dugal sama gars yi na kër gi xonq na kër gi xonq bu ñu demee ba egg fi ñu war a jëm <laughs> dof baa ngi nii nag xolal dof baa ngi nii mais dof bi xolal day kaas droit am ñu war koo tegal loi dof bi ah Assane Diouf dof bi laa wax dof bi ngeen fekk Amérique gàdd ko taqale kook ñaari doomam trois ans ak deux ans taqali kook ñi ko bëgg ci seen xol taqali kook liggéeyam barki sëñ Bamba moo leen takkal seeni bagages gëm ngeen ko ah Macky moo moo Sénégal bu leen neexee de fël-fël leen bu leen neexee ku mu neex nga fël-fël ku mu neex nga cibbu xorom ku mu neex nga kaani ku mu neex nga poobar bu la neexee sax suyal suukar yaa xam loo bëgg senegal senegal Baye Fall leen vidéo yi nu mu gaaw rek dañuy baal tey partage leen vidéo yi let's go guys Sénégal ñoo ko moom Sénégal sol tenue nekk marchand ambulant ci mbedd mi oto bu la romb nga tànn boo ci droite ak boo ci dul droite loolu defarul sa bi dafa bari mais partage leen vidéo nu mu gën a gaawee nga xam naa ne Makeek Marème ñi ngi ñuy seetaan bu defee ñu yónnee suñu message parce que ñun ñooy réew mi ma bëgg yéen sénégalais yi ngeen am fulla te bàyyi di wax borom réew mi parce que ñun ñooy borom réew mi ñoom moomuñu réew mi de moomuñu réew mi jegewuñ sax fuñ koy moomee koo xamante ni yaa ko jox mbubb mi muy sol di ko jox oto bi muy dawal di ko toggal muy lekk àdduna yërmande moo ko lal àdduna yërmande <laughs> salaamaaleykum yërmande maaleykum salaam yërmande waaye salaamaaleykum jaay doole maaleykum salaam jaay doole ba léegi dañuy dañuy jàpp ñuy jàpp ay doomu Afrique di leen refoulé ci réewu nasaraan si na suñu président bi demoon Charlie Hebdo ànd ak nasaraan si lu tax génnul wax ci suñu mbokk jullit yi nga xamante ni ñoom la ñuy faat ci àdduna bi waaye mën nañoo lijjanti Assane Diouf de mais duñu lijjanti mukk mukk ci àdduna li ñu war a lijjanti mën nañoo sàcc suñu alal tamit di ko investir mën nañoo bàyyi Ablaye Sylla muy jël suñu alal di ko tasaare ci àdduna bi mën nañoo dem kër Mortala Dimme kompoloo ab Diouf ak ay nitam ñépp pour tàqale ñoog suñu noflaay ñun sénégalais yi nag ñun doomu sénégalais yi sama gaay na kër gi xonq une minute de silence pour suñu mbokk jullit yi ñuy faat ci àdduna bi